waaw salaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen di siyaar gannaaw ba ma sante yàlla jul ci Seydina Mohamed maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Saliou Touré di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di wax jërëjëf sëriñ Touba alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla rek ma war man original daam seen mi war a yéeg sur scène ak yeneen i feem xam nga ne woon naa leen sama riim dinaa ci am prime du ma def benn crime ku miim laa def Abdou liiru siiru ba doon ko ñoom man mi maa rey ko ñoom mi néew ma ñu xàll langue gi nag ba mu xàllee ko bu ko defee géew bi yaatu ñëpp mën a fecc te kenn du yàqal kenn nee naa leen wax piste athlétisme la ku ci nekk couloir ba ngay daw boo ko wàccul doo laal kenn léegi nag tey observation lañu am observation Griff Sougou yow Griff Sougou tey laa lay dégriffer tey laa lay dégriffer dina nga am fit nga ni ba pare nga ni yow yow mën ngay menacé yow Griff <laughs> Sougou yaa ko yàq Griff Sougou yaa ko yàq ñu ne oh nga ni da nga may jéem a toroxal wala nga ni léegi da nga may jéem a yàq ay waay yàq ku yàqu wul ay waay jéem a yàqu yàquwul Griff yaa yàq say wax Griff dama liir say commentaire te tey nga gën a deewati ndax dangaa laal laalaake te boo laalee laalaake te takkoo lapp taake gaañ dañ lay attaqué Griff xamuloo nga bëgg nga xam ko ku ñuy tette ngay bette di màtte nan la boole kuy karaate mu daat lay damate te kenn du la atte Griff man ngay menacer di ma woo téléphone di ma saaga ay ndey du ma la saaga nag billaahi du ma la saaga ndax respecté naa man ñi may seetaan di ma déglu man ndaanaan laa Griff man ndaanaan laa te ndaanaan ci ndaa lay naan bu bëggee fanaan gis nga xam nga lu may bañ di waxanteeg yow wax ji di bari sax nit ñi naan ñii dañuy dàgg sante man dàgg sante wu ma ak yow déedéet damay wan nit ñi rek ni leen yow ban personne nga ndax yow benn mooy taxaw nga nee nga Amérique gii ma nekk ci New York nga ne yow mën nga ma fee indil problème Griff yaa mën a fen Griff yow Amérique gi li nga fi am rek laa fi am li nga fi doon rek laa fi doon Griff yow nga ni man visa moo fi dugal yow lan moo la fi dugal lan moo fi dugal sa morom mais Griff yow yaa soof Griff sugu yaa soof waaye tey nga xam ne lépp dëgg la yow dootoo ko defati matuloo ma apprenti dinaa la dóor ba foo ma sénati buddi ñàlli ñokkali Griff xam nga da ngay jaay mën a wax nga ni yow da ngay wax te doo ci daw dara ba pare nga ni ma yaw heure boo génnee ma génn yàlla yaa ma dàq wax ak nangam ak sàngam yow nga fekk waxkat bu toog nga naan ko yaa ko dàq wax di xam nag wax kenn mënu ko da nga koy jekkoon da ngeen ko tëgg ko mboot mu dem ardo waxkat boo gis nag seen kër am na waxande te wax bu juree doom waxu lay Grif ñun xam nañ nu mu demee Grif man mënoo mu am lu toll nii rawatina na nga ni dafa am ñoo xam man dama leen mar a sentaan bàlle ma ci kàddu gi Grif dama bëgg nga xam kan mooy Dame Sène man ab taalibe laa simple nit laa mais yàlla dimbali ne ma ba am na ay caaxaan yëfu ñàkk fayda yu bëri yoo xam ni man bokkuma ci tudduma ci dégg te jamais au plus grand jamais nga dégg ma ci Griff gis nga man doom buur géwal laa mais ku am fulaak fayda ku diiñ Griff nag boo amul vergogne dinaa la yóbbu ci jàddu koñ boole ak ay jargoñ ndax dignité mooy tax nga nite Griff tey nga xam ni ku diiñ ngay waxal nee nga dama la fekk benn xew Mohamed Amar nga ni di la ñaan nga ni ma teeyal yow Griff yaa mën a fen yow Griff mën a fen yow Griff dangaa yorul woon loo ma may man maa ñëw ci xew ba dañ maa indi ci xew ba mooy tëgg xew ba nga ñëw may wax ak yow ba ma waxee ak yow da nga ni ma xaaral ba ñu àgg ca saal ba ndax yow loolu loo ci yëkkate woon mooy wane woo pour bu nit ñi bëree ci saal ba jigéen ñi ak ñëpp ñëw nga wanewu woo loolu ndax ba ma lay wax ba ma ba may wax ak yow ca xew ba yoroo dërëm nga da nga ni ma teyal yow Gris yow dinaa taxaw man daam seen nga naan ma nga may yow nga yow nga may wàññi yow naa ma teyal boo ko Gris bu ma taxaw wax waaye billaay du ma saaga mais dama xam ni yow mag mu mën a fen mooy yow mag mu mën a sos mooy yow waaye man mënoo yàq sama der barke Mouhamed adduna xam nañ kuy daam seen nga bëgg a yàq sama der danga koo mën Griff man mënoo yàq suma der nga ni dama ñëw ci ngénte di la wayaan ngeen ma dalal yow Griff yow boobu an sama denc man yow Griff yow di nga wax ak man ton boobu yow man original daam seen mi yow Griff yow yaa mën a fen du mën a saaga waaye tey dangaa mën a fen tey nga ko dégg ma doon ndax danga mën a fen yow Griff nga fekk ma ca ngénte la man xaw ma sax di nga ñëw xaw ma billaahi xaw ma sax di nga fa ñëw yow man ki ma déplacé jëlee ma fi yóbbu ma ba ca ngénte la indi ma ma ñëw ci ngénte di ko tëgg yow nga ñëw ca ngénte la fekk ma mag boroom ngénte la Mouhamed Amar mu génn xaalis di ma ko jox ma gis la nga ñëw egg si kor corne ko dóor ko science Griff yow yaa soxor girif yow yaa bon nga dóor Mouhamed séance nga ko man du ma seer man booy Cees laa jaxaw laa yaroo jaxaw laa màgge ba day ni ma day ngir bu ma gis ma ñëw yaru jàpp sama ñaamu ni nga tem ma benn innocent man jaar naa fu bari doog a nekk ci aar bii di calli calli nii saa waay gis nga aar nii fekkee ma ci boole rek man jaay ko tu fëgg jaay laa bu mag nekk Cees di jaay fëgg jaay ba may xale ba day nii ma day am jom lool am fulla am fayda denc sama bopp denc ta mooy tax nga nitee yow girif nga naan ma da ngaa ñàkk faydaak di ma woo di ma menacé di ma saaga yow mën ngay menacé li nga menacé lépp laay effacé <laughs> yow xamoo sax yow damaa yaakaar da nga def observation tey griffe sugu tey laa lay dégriffe rawatina nga ni léegi da nga ñëw Thiès ma ni Mbossé Joël sarax ma ngeen di ma griffe sugu sama soirée griffe yaa mën a fen griffe yow nga ñëw ci stade ba fekk moom may tëggal sama équipe ASC Jaxaw nga ñëw ci kaw tribune bi boobu xaw ma sax loo tudd ngay jëkkati xaalis di ko xëpp di ko xëpp di ko xëpp xam nga ñun moom animation suñu yëf la ci kaw loolu soirée bi ci guddi gi mboosa Joal moom moo ma xamal ne yow di nga dina dina ni soirée ba nga ni man maa ko doon saraxu naan ko indi ma griffe su léegi amul problème léegi ko saraxu ma griffe su ko si soirée ba ci guddi gi ba nga dikkee di may sa xaalis léegi dama laa neexal wala yow dama ne la griffe di nga may par yow nga ñëw di wane jigéen ñi toog xam nga yooyu ngeen di def di wane da ngeen am xaalis te amu leen dara ah sa waay bu ñu fontoo waay Griff Sougou bul ma taxaw wax waay yow Griff Sougou ñu wax nga ni léegi yow ku déglu say wax da nga ni da bëgg wax ni man moo gét moo ma fay wala moo gét moo may wax pour ma wax ak yow moo gét da yàlla xam na ni xaw ma nu mu sant xaw ma këram fu mu ne xaw ma buntu këram nu mu mel ñaari yoon laa ko gis xaw ma ñett yoon fii ba ma ñëwee Amérique ba léegi ñaari yoon xaw ma ñetti yoon benn bi Africa la ma fekk ci buntu Africa vie ñaa du ma bàyyi ma fenn man ak vie ñaa ñu toog noonu mu tàng ñu toog di ko waxtaanee mu yor bongo mu yor tama ci moo gën di dox ba yem ci ñun ñëw taxaw noonu doon nit ku baax man ma ko dara gis naa ko daal mu yaru jàpp ñàmburam xaw ma lu ma ko dërëm beneen bi moo ma fekk ci euh, nu télé bi waaye fii Harlem maa ko fa fekk fekk ma defoon émission ak Sofia bu 2 dugg si foofu fekkaat ko fa. ñetteel bi mu yoon mooy dañoo daje ci 116 bi te moo gét fu ma ko romb man xàmme ma ko woon sax yàlla xam ne xàmme ma ko woon sax bu ma gisee muy ànd ak gars yi rek laa xam ne kon kii mooy mooy gét ma ñëw nuyu ko mu nuyu ma dañoo rombante nuyonte dem moo gét mosu ñoo toog lu mat 30 minutes man ak moo gét yow nga taxaw ne damay damay cogg ay nit man yow Griff Sougou man ndur naa la koy cogg yow Griff Sougou man bañkat bu doy ni man. kon Griff Sougou yow xamoo ma barke alxuraan yow xamoo ma man duma ma koy coggu kenn ñàkkuma fayda gis nga aar bi nga gis ni bëri lu ma ciy bañ bañ ku ma yeb bëri lu may moytu moo tax sax déggoo ma ci fa sori ak maa diiñ ak maa li may def car macha te loolu yàlla la du man li nekk ci man nag yàllaa ko def ci man mënoo koo dindi Griff je suis le meilleur les autres ailleurs un homme de valeur d'ailleurs ba may wax ak sama éleveur xar maa ngi ci chaleur ñoom ak seeni auditeur waaye ñun ak suñuy valeur Griff da nga réer da nga juum da nga réer da nga juum saaga yi nag baal naa la ko man li ma gën a metti rek ci wax ji mooy da nga ma woo nee may menacé fekk da nga ma fekk ci benn milieu boo xam ne mënu woon wax ma toog dina déglu rek nga may saaga ay ndey di wax lu la neex xaw ma kan di wax yow nga naan ko waaye daam seen mu nangam taan mii xanaa kii yow yow dootoo ko defati nangam sangam yow Griff faalewu ma la faalewu ma kuddul yow barke Mouhamad faalewu ma la faalewu ma ku dul yow mënoo ci man dërëm da ngaa xamul rek sa ngay def dafa am fu muy yem Griff billaay <laughs> Griff boo bëggee ku damate rek songal karateka euh, Griff maa ngi ci mu tuddee sax yéen la ko doon defal wala foo ko bi dem xanaa xamoon yàllaa ma fal ma ànd dal ba toog ci ku may jéem a kalmaale galgal dootoo ko tal maa a dor balta du ma ko jël tàng ni xal Griff wax ma seet si jooy naan lu tax nga may nax maa tax ba ñëpp di wax ba fu ngeen dugg foofu di jax mbaa du damaa dëgg yax mango mu ma ñor ci pax buy toog ma lay nokk jël sa dugub di ko sook jël sa poset di ko bokk jàpp sa mbag yi di ko fokk ba mu ni kar Griff nga ni dañoo bokk avion ma romb la nga woo ma ni ma daam na nga def ni nuyonte ma naan la noo bu la neexoon ma romb la doomu dooma faale dooma woo nangam sàng waxuma ko pour dara de dama doon sagal rek Griff te xamoo loolu ndeysaan Griff yow xamoo ma dama cees nga laajte ma Griff xamoo ma dama cees nga ma ak maa mën a sagal doomu aadama man bëggumaa ñaak kersa nit bëgguma def nit lu ko metti ndax sama xol ba Griff looy jaay maa lu ko ëppale looy jaay nag maa la ko ëppale bu fekkee dangaa ngaa defe nit ñi ay complexe lañ dama doon wax wan doomu aadama ni kay yéen buñ leen complexé ndax du ngeen dara buñ leen complexé amul nekk Amérique amul nekk Hong Kong amul nekk Kidira amul nekk feneen girif kaa ma la benn affaire gis nga dama bëgg nga xam ni fii lu fi waay am yàllaa la ko may te àdduna amul solo boo ko déggee boo tal ko lu mu sol te yël ba ngay solo ndax baatu bu ma la du dagg àdduna loo fi def defit la bañ defet moo tax gaañ di def am na ñoo xam kenn du leen tingom di yee si te boo amul kàttan da ngay loo àttan girif ñànkatan fu mu làqatoo di jëw soos ko togg sori yaa may dégg dama bëgg nga xam sa bopp nag nga réglé man nag du ma tàyyi ak yow amul problème gars yi xam nañ ma man góor yàlla laa géree laa dàggasante wu ma ak yow damay wax ak yow parce que yéen ku leen may lu day ni rek ngeen ëppal màmmal réew mi réew ma ma nekk nag doo ko màmmal tamane fii di Griff si wu toogal yow xamoo sax da nga dof <laughs> léegi nag ñu war a faj dof yi bu ñu gënee dof dof yi xaw ma fan la dof yi jëm dañ leen a may lu ëpp ngeen nekk Amérique rek am ay complexe yoo xam ne yéen boo leen waxee ñu leen di déglu wala ñu leen di jéem a am lu leen di complexé man bokkuma ci ñooñu de man saraxuma kenn yalwaanuma kenn man yàlla laa yaakaar man fii sama wërsëg laa fi jës rek tey nee nag. yow nga ni mën nga ma indi problème fii ci dëkk bi Griff yaa mën a fen mais yow yaa mën a fen yow mën nga ma indi problème yow man problème nga ma indil yow Griff Sougou yow waxoo dëgg da fen fii de yàlla moo fi indi sama wërsëg a fii jeex rek yàlla ni yow bi daa am kon léegi sa wërsëg jeex na fii ndax ñi fi jóge gënuma leen seen wërsëg a fi jeex ñi fi toog gënuñu ma li ñu mën a am fii tey mën naa am lu ko supérieur ndax sama ndey liggéey na ko sama kër sama kër baa yewit bu dul dara man am naa jom man togguma ne yàcc Griff man kéré laa danga xamul rek yow comme loo defal nit wax ko yow rek xam nga ñu ma yërëm ñi nga xamal loo xam tey boo ko waxoon tey ñu xaru man li nga wax defuma dara moo tax wala aisément daa lay tontoo ñëw sol kab bu bees waxtu ñëw toog di wax ak yow nii vocabulaire grammaire dina ci dugg yow dinaa def ak yow tey sax opération opération nag boo xamala opéré ñu dem dugal la bolog dina la opéré non non opération comme nga nekk classe joxe benn calcul nii opération nga ñëw trouvé xam nga nangam mais yow doo doo <laughs> yow Griff yow Griff yow doo soos te damaa a xam yow sa ndey moo ma jëndal billet wala sa baay moo ma jëndal billet wala yow Griff Sougou yow sa baay moom Amérique wala sa ndey moo moom Amérique ba nga naan ay Amérique mën nga ma fi indil problème da ngay duul da ngay fen na ma gaa yi baal ci kat ci kàllaama gi sax ndax kii daf ma woo di ma saaga ay ndey xam mënul naa taxaw fii di saagante moom ay ndey du ma ko def bu dul dara respecté naa leen yéen yéen ñi may seetaan yéen ñi ma bëgg mais gis nga genre gi ñoo yàq waxuma Sénégal àdduna ñii àdduna la ñuy tasaare ndax fi mu nii pour ñoom nit ñi jox nañ leen nopp nit ñi jox nañ leen bopp xam nga maanaam compagnie gii rek ñoo tax nit ñi di féewaloo ñoom ñoo tax nit ñi mënuñu doon benn ñii ñoo tax léegi kenn mënta am doom sax saa yu ba sax xel dal ci moom jaaro girif sugu yi nga xam dañuy yàqu ba pare bëgg ku ñu yàq dañuy yàqu ba pare bëgg ku ñu yàq xale bu nekk ci yoon nag na moytu mag mu wàcc yoon ndax mu mag mu wàcc yoon du bëgg lu dul nga wàcc yoon waaye tey nga xam ne mag yow a yem du ma la saaga duma ma la wax ju dépassé dinaa wax ak yow dëgg yoo xam ni billaay boo boo ko déggee di nga xam ne yow dëgg lañ la wax te dëgg dëgg neexul de ba nga xam dëggam metti ñu dëgg la ay crampon wala ay cap mbaa nga tëb dëgg xal dese na la beneen tëb griffe yaa bëri ay tëb yu la dese nga ni baadoola laa amul benn problème amul problème waaye man kenn xamee wu ma baadoola man nit ñi jox nañ ma cër bi ñu war a jox de ndax man taxawaalu ma fenn man dew ma fenn di fenal kenn du ma naafeq kenn du ma makaro kenn laa ilaaha illallaah yoo xamoo ma sax man du ma makaro kenn billaahi wallaahi du ma dunguru kenn dama ko def am naa fula joo xam ne <laughs> dama cees nga laajte ma buñ la waxee kuy daam di nga wëlbatiku waat yow sukkaat raam ni ma damaa juumoon di da sos man kenn du ma sosal boo ma sosalee li ngay wax la nit ñi dul gëm ndax nit ñi xam nañ ma heureusement dafa ma benn lu ñàkk fayda tey jii su ma ñëwoon tey di la wayaan yow Griff Sougou yow yaa ngi dégg tey nga fekk ma ci xew ma lay wayaan ndax jëluma sama dàll bi sol ko fekk la sa kër di la wayaan yaa ma fekk ci xew ba ni daje fa ba ma la wayaanee joxoo ma gat ndax yoroo gat ñu ma bàyyi bañ daje saal ba fekk mbooloo ma ne fa loolu nga wax doon xaar xale jigéen ñi ñëwaale nga ñëwaale warewu waale fa Birame Souleye yow yaa mën a fen <laughs> te jour boobu sax dëgg maa mayoon ba pare taxaw fii bëgg a wax yow nga ñëwoon may ma dangaa ñëwoon fo du ma xam sama yoon nekku ci la fa indi woon nag mais fekk nga ma ci stade ma xëpp fa xaalis te sa xaalis boobu nga fa xëpp noonu saa waay du xaalis rek yaa ko moom nag sa xaalis la xaw ma noo ko amee foo ko jëlee sama yoon nekku ci sa xaalis la yaa ko fa xëpp xëppoon nga daal mais Griff bàyyil fenn Griff ku ñàkk jom nga yow ku ñàkk jom nga yow sax doo nit man nag du ma ni tey laa gëj a wax ak yow de ndax su ma nee tey laa gëj a wax ak yow nga waxaat sama yaram tàng foog ma génnaat du tey mooy dernier kii bi de bii premier partie bi la jëlal lugum loolu nag maa ngi ñëwaat gënaatal rewoo sax xam nga lii laa doon wax naan Sénégal ku fa dee catala rey genre gris su bu ñu dee rek cataleen rey ndax yoruñu dara ba pare bëri tiitar toog ci oto yi di sinap pour ñu xam ne am nga oto ngirif loo am am naa ko boo amee kër am naa kër kon rek boo amee oto am naa oto kon rek leen ngirif ay yére ki daal la nga am am naa ko ngirif nit nga may nit ngirif kenn gënul kenn ci àdduna ngirif simplal ngirif woyofal balaa nga xam oyofa neex nag naaw jot xob yee dem këyit yi dem feuilles yi dem ak xoola mbuus yeeg mais mool fa mu toog du fa jóg conteneur nu muy buusee ngirif tee ngaa yaru ngirif yoroo dara girif yoroo dara xam na nag nu mu demee ñu nekk Sénégal ñoo comprendre rek parce que Sénégal ngeen di nekk bëgg a yéen bëgg a bëgg a leer yéen gars yi pour pour gars am seen complexe ndax am na ñoo xam tukkee gu ñu xamuñ lu ci tukki pour ñoom ku tukki rek fi mu ne yaa gën ñëpp fekk xoolal yàlla mooy yóbbu nit ñi rek yàlla mooy cëral nit ñi yàlla mooy wërsëg nit ñi rek fi mu ne nii girif yoo xamoo lu ma am xamoo lu ma mën yàlla rek a xam xaw ma loo am xaw ma loo mën kon nag jarul nga ay ñi dañoo mën a ñaan ak ay ba ma fekkee fee ay yow da di ma saaga ay Griff moom rusul woon ñu may seetaan Griff man mosuma def vidéo ñaar yoon benn yoon nag laa doon def mais yow ay ma dégg fa